ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare ñu ñëw jox leen li gën a fës ci toile bi ñu ubbi ko ak législatif 2022 yi di ñëw Maodo Malick mbay ci ay kàddoom nee na li ko gënal mooy ñu dekk décalé élection législative yi ngir gëna waxtaan ci parrainage bi ngir trouver consensus ba maytu yenn conflit bu ñu jàllee ci loolu ñu wax ci arabie saoudite bi wàññi quota ak pèlerinage bi di ñëw naka noonu Sénégal bi daan yóbbu lu tolloog 12800 pèlerins délégation bi ñu ko may mu yóbbu ren ji mi ngi toll ci 4736 pèlerins ñu tëj ak juge consulaire yi war a arrêté suba seen ay audience ci tribunal du commerce bu Dakar li ñuy joytu nag mooy seen indemnité yi ñu leen fayul depuis mars 2018